xale bu ndaw bi ngay manipuler sa doo doomi papam bii parce que moom moom dafa bari doom mu ne moom dafa fataal ba doxaandeyam yow yow xam nga ne kon yow da lii lan moo fi jar yow man musumaa wuti ak baa wangam bi biir baa ëppa wang bi foog mu fataal mu ne moom dafa fataal ba doxaan kenn xamul lu moo dul. biiram gën a rëy wangam. yow yow xoolal yow dinaa la jël umi mais ma rek mu ma reeloo fii di ngi ko topp kii bu la stressé. yow doo umi bu ma ree ngir yàlla mu ne biiram baa baa lifin baa rëy wax nga digga biiram baa rëy waaye mais ma rek. ah waaw de foog mu fatal di. rusut ragalut man dama waaru man dafa am. ñu ñàkk a jom rek yow li nga def ci biir dëkk baa ngi ne fang. Aida ah, Ndiaye yaa ngi nii toog sëriñtu bu mag bi nga doon Aida Ndiaye doomi xaram bi nga doon Aida Ndiaye doomi xaram bu tekkiwul saram ndayam bi nga doon Aida Ndiaye yow man ak yow dañ géer ba Aida Ndiaye ñu jël maa yow suñ géer dugal ñu YouTube da Ndiaye xanaa kon war nga maa may jaama maa ko xanaa yow Aida Ndiaye man démb laa door a gis loolu noonu di nit moo ma ko wax sama dugal YouTube ma dem gis ne jël nañ suma kaay yépp def fa séena bu dafa su mën a taar def fa Aïda Mbeuss yow xam nga ne daxaar naa sa ndey ba daxaar sa ndey fu mu <laughs> yow du nga ne yow da nga mandi Aïda Ndiaye nga ne yow da nga manqué yow man a yow dañ koy beesalaat xam nga nit ñi hmm. waxoon nañ ma bàyyi la kii dafa def accountam bi private yéen ñu bari doo leen xam because su ma génnee di wax xëj na ngeen foog ne man dama nekk di tooñ Aïda Aïda live la dem because accountam bi private la ko de xam nga ni ki su defee accountam bi private soo leen nekkutee friends doo leen mun a doo leen mun a euh, noo nekkuma di kaa Aïcha Aïcha nekkuma di kaa bul woori sax nit ki su defee accountam bi private su nekkee live yow doo ko xam yow xamuloo ne maa la gën a say ko wax naa la I have three fucking fake accounts yoo xamante ne maa yow friends nañ foofu sa bugg a góor góor laa fa jël rek def ko profil rek doomi xaraam bi follow ma lifin accept ma back follow ma back foog ne nag xam naa góor bu bóola góor bu jantal la di nga tax nag mu dem mu dem mu dem unfollow waaw mu follow ma mu follow ma mu follow ma stupid ass la mu follow ma ma bind ko hi mu naan hi how are you doing yow yaa bëgg a góor yow Aida Njie. foofu ngay xamee ne dafa desperate na xam naa dina fàttaliku ban laa nekk di wax su pare daf koo de block léegi léegi. <laughs> dafa a xam naa soo demee block account boobu noonu then after beneen bi su ma yeneen three accounts itam nga bàyyi ko foofu noonu dégg yow Oumy yow xaaral xaaral ma ñëw waxaa meer bu meer bu doomi xaraam bii nii gis ngeen man. seen nonsense yi ngeen nekkee si internet bi di ubbi ay fake account di dugal ay nit di ma si dugal man I don't give a fuck about all of that man bu leen neexee jël leen ma ngeen dugal ma fake account jël leen ma ngeen dugal ma seen page yi man faalewu ma I don't give a fuck man keew ma waaye yéen mii moom fake accounts yi yéen di ngeen yàgga di laaxu comme ni ngeen nekkee woon seen biiru ndey yi because coward mooy def loolu noonu yéen Gambien si lan mooy seen problème fan yi fu mu nekk nii internet bi everybody is saying internet bi naka la nekk di demee Aida Njie yow boo nekkoon nit yow bu dee yow mag nga sax yow yaa ngi eeg life boo xamante ne broda boobu noonu mu ngee try to make peace yow nga eeg foofu noonu nga ne dangaa try to make peace next minute wàcca nga nday life boobu noonu nga dem taal sa life boppa di bu di nday rek di saaga ndey rek yow yaa dig TikTok bi yow xam nga ne manqué wu loo defuloo moom déedéet déedéet uyu ma doom bay di kaa sax Dombaay may ma rek nekkuma di kaat dof bii nii laa laa bëgg a wax def ni sa énergie bi ngaa ñëw wees pour lan la dof bu wérut bii dof kii dama ko naanaan énergie drink bul woori dof bu wérut bii nii yow nga ci place boo xamante ne ñu ngee try to make peace fan yi li nekk di xew si internet bi ñëpp gis nañ ko ku ñu waxu dëgga rek yow kon bëgguloo ñu ñun lu ñu nekkee si internet bi du dëgga du yoon du dëgga du yoon saagante ndey bi waxante lu ñaaw li tikuwante bi nonsense bi nekkee ci internet bi ni yëpp du yoon because ay xale yu ndaw ñu ngee seetaan ñu ngee jël suñ suñ live si ñu ngi koo record man nekkuma di di wax waxal nit direct li de ñun ñëpp laa mm-hmm. nekk di wax because man mii suma boppa bokka naa si Gambie everybody ñun ñun mii nekk Europe dafa ñaaw suñ family members yi and everybody ñun baay Gambie ñëpp they are talking about this car ñëpp they talking about us dañ dem ba ñun dañ siiw ñoo xamante ne xamu xamuñ ñu passionally nii sax dégg nañ suñ tur yi ñun ñëpp sax lolu rek rek rek ñun dañ si wara rus bu dee dereti gor moy daw su yar toogee si internet bi di wax né man gor la wax nga lolu ñu daw suma yaram bi ñun foog naa dereti gor dafa desa daw suñu yaram bi dereti gor dafa desa daw suñu yaram bi ko tiktok bi yaatu na ko xamantene ne lo dem ak mom bul dem ak mom demal ak ñinga mëna demal waye demal lo demal nit ki dafa ngay reyante nit ki every fucking day ngay reyantee nit ki li ngay reyantee nit ki di saagantee nit ki ndey ba pare di di di di involve ay yoo xamante ne sax it's so unnecessary lii lu ko fi jar TikTok bii nii tey comme ni nga toogee taal sa life nii di wax nii noonu rek nga ko xamee waaye mun naa dem tëdda tey ma dee su ma dee suma account bi ñu start di ko report de pour ñu baan suma account bi loolu yëpp dara nga ko sóoraale loolu yëpp dugal leen ko seen biir boppaay waaye yen da ngeen mel ni ay evil yéen da ngeen mel ni ay duma gambien si bu gantewu leen xaw ma lan mooy seen problème yéen happiness si nit foog naa seen xol bi la dee dog happiness si nit pour ngeen toog ngeen gis nit mu kontaan yéen loolu neexu leen seen xol bi la dee kattandayam yéen jikko duma yi nii mooy lan jikko duma yi nii mooy lan Aïda Ndiaye yow man yow foog nga hmm. bàyyi ma Aïda Ndiaye te gis nga man ak yow step bi nga jël nii man ak yow nañ dem de gis ngeen barki démba dama toog su ma kër ma toog around 9 pm si guddi police yi ñëw ñu foga ñu ne ma ne dañ am allegation made against me from Aïda Ndiaye ne dama nekk di dama ko nekk di harass so dama need pour dem uyu on the 6th of October which is gannaaw ëllëg la teddu because duga nañ si on the 6th ma ne ok that's fine pour madame dem uyu te before that sa man wàccee na sa video si and everything te yow bo demee di report né man dama la nek di harass and next minute yow yaa ngi taal live di ma harass di harass suma jëkkeur yow what the fuck are you doing yow da nga foog ne yow loi pour yow rek la fi nekkal Aida jaay yow loolu nga foog man fi bo ma sagé ma saga la Aida dañ jaay rousséw mako kenn ci bir internet bi fi ragalew mako kenn ci bir internet bi fi ku ma saaga fii nii ma saga la saga nak taxout fenn fum fum fum joggé fofu la dëkka waaye da ngeen dee topaniki bem sis, da ngeen dee topaniki besi maraj bi yow da nga ñaaka fayda yow mag bu nukkandeyam nga yow amuloo ben fayda ya ngi tok fani yi ñu ngi reyante ci bir internet bi ole nga tok pour nga def peace te loolu moo la eegaloon si live sax defuloo nonu nga paré nga dem face life, live nangam tangam day caapan day nukkandeyam ni patiti patata di wax di saga rek di saga rek de Ndiaye yow war nga rus loo war ngaa rus nonu ay de Aïda Ndiaye yow xam nga ne clearly sa diggante ak yàlla musuloo sey ak Modou Lamine doom moo nekk seen diggante bari na fi góor jigéen euh, xale yu bari yoo xamante ne juddu nañ te seen ndey yi sëyuñu te ñi seen ndey yi sëy sa génnuñu leen Aïda Ndiaye admit the truth waaye Aïda it soo so unnecessary pour nga toog si internet bi di saaga góor boo xamante ne deful la dara di saaga góor boo xamante ne waxut la tuddut la taasut la man mii jabaram sa waxumala tudduma la taasuma la Aïda Ndiaye yow est-ce que ça va yow yaa ngi wér yow sa tafaar bi nga def barki Demba Njaay mu ngi nii si internet bi yow bu ma doon yow dinaa doon xoolaat suma toogaay bu baax xam bu baax ni maa doxee waaye yow ku ñàkk a fayda nga Ayda Njaay yaa ngi nii sa audio ñu ngi jël ndeyam yépp tasaare ko si biir internet bi yow bi ngaa live danga wax bi xamuloo looy wax yow wax nga sa di saaga sa boppa man Ayda Njaay ku toj caapa ndeyam laa man Ayda Njaay ku nukka ndeyam laa xanaa xamu leen ma dem leen ngeen laaj Google yow who are you yow soo YouTube sax soo demee type Aïda Buzz balaa nga dee pare rek Aïda Buzz audios nga dee gis the next minute li nga dee def li nga dee gisaat si suuf Aïda Buzz and Seynabou yow who the fuck are you yow ban important nga am si society bi yow lan nga jàngal lan lan lan nga lan nga lifin lan nga lan nga liggéey Gambia loo xamante ne nit ñi nañ ko gis ne kii sa at least she's a Gambian liggéey na yow nekkeewuloo dara Gambia ay eh, nekkeewuloo dara as a Gambian citizen Aida Ndiaye lu dul toog si internet bi di di yaaxa yow nga ne you are an activist yow foog naa yow waroon ngaa xam bu baax yow lan ngay lan ngay def with your career but yow you are so untalented yow amuloo any talent lu dul liñ la sagale woon nga dem Gambia ñu jox la mic ngay def sa eel yu cëkkandayam yooyu noonu sa yaram bi nga mel ni butéeli ko cola la buñ dengal ngay sol sa roba raka yooyu noonu parce que roba yooyu du sa roba obviously yu xat yooyu yoyu noonu nga xamanteni ni mu ngi tuuti boko solé sa bir ba ngi rëy sa el ya ngi sew ya ngi melni ni Ouzin Keita bu jigéen yow Aïda Ndiaye ngay wóoraantu di def yu nonsense yi hamut. ay da nyaay gis nga man i'm just 23 years old Why man dama dama dama am I'm not impact bu baax ci Gambian society bi da nyaay because man dama dan liggéey with artist ah, dama dan promote Gambian Uh, uh, uh, Living music industry bi Aïda Ndiaye video clips yu bari I was in there dama daan represent Gambia man suma dëkka dama daan represent suma dëkka man Miss Brilliance intel intelligence at Taiwan man represent on Gambia Aïda Ndiaye so man I'm proud to say ne man at least def not dara loo xamante ne it's important to the Gambian society waaye yow nekkeewloo dara si internet bi Aïda Ndiaye sa doom yi fi ñu nekk nii de using TikTok sa doom yi fi ñu nekk nii ay mag nañ juratuloo ay xale yu ndaw sa doom yi de watching TikTok videos ñu war a toog di gis seen yaay muy saaga di def yu kenn xamul Aïda Ndiaye yow lan mooy sa problème yow lan nga ma defut yow xanaa yow suma ruux moom nga bëgg a jël Aïda Ndiaye yow lan mooy sa problème Aïda Ndiaye toppa nga ma toppa toppa boo xamante ne man I don't even know lii mbaa jaamala Aïda Ndiaye way before maa tukki Aida Njaay nga dem nga dem dugalante ak koo xamante ni yow xamuloo ne man kooku daf ma xam docca ku ko xamul Gambia dégg nga ko dat photographe nga dem di texte kooku noonu di wax ne man te yow ja nga jos gis kooku as my Facebook friend nga dem di texte kooku noonu pour kooku noonu mu nga yónni ko ci man pour man mu ay Aida Njaay how evil are you Aïda Ndiaye ngay jox suma number sa góor bu kattandayam bi nii sa xale bu ndaw bi nga xamante ne sa moromi doom la nga koo jox man suma number pour mu maa threaten Aïda how evil are you mu ngi nii maa suma jëkkër sax we are not even safe anymore because suñ dem liggéeykaayam sax nit moo fekk foofu noonu yaa xataaya sami yëpp police police investigation nothing has been done because of sa evilness moo tax suñ kër bi yëpp léegi caméra nañ ko def especially out the outside because guddi man time bi suma jëkkër dem na liggéey yow how evil are you Aida Njie te li ma jaaxal yow soo toogee si internet bi lu nekk nga dee wax di yuuxu fekk mandi nga ba sa caapanday bi xamatuloo foo toll fekk tux nga taay mandi nga naan sàngara ba xamuloo looy def nga ñëw nga toog nga ne yow doo doo may ni ñi jàmm di wax lu la saf te yow man a yow soo soo ma gisee yow soo ma séenee su ma taxawee doo romba ba ma génn court house bi ki nga dee door a wàcc si Aida Njie nga dem Aïda li nga def nii li nga maa def nii yëpp lan moo ko fi jar Aïda nga toog Gambia maa ngi sey depuis Gambia nga ma yaagaa toroxal 2018 ayda maa ngi sëy nga toog ngankama doo am doom di joxe suma nomba yow soo amee doom rek nga xam ne man santu santuma njaay yow nii yow ne la yow nii yow ne la Aïda Njaay ma biir di di am miscarriage three fucking times may toog ma ne yàlla moo ko dogal suma famille members ne waa kii wax la lii lii li ma ne yàlla moo ko dogal waaye ayda yàlla dafa weddi sa wax jox ma ñaari doom ayda jox ma ñaari beautiful kids ma jur doom yooyu noonu ayda nga toog si internet bi nga ne man suma jëkkër jur suma doom yooyu noonu man suma doom yi dañ xees man suma jëkkër dafa def DNA test yooyu noonu Aida Njie loolu pour lan suma malika yi ndaw yooyu yoo xamante ne day turning four and three years old very young very young ayda nga toog si internet bi man sa boo maa sosal sa sosal ma waaye di wax ni man suma doom yi doom yi xaraam nañ suma jëkkër jurut doom doom yi ayda nga indiloon ma problème maa ngi am suma doom yi nga jël ay numbers di dem di di ñi di jox nit ñi ba di jox góor góor suma nomba kooku di kool suma jëkkër di ko wax ne sa doom bi sa jabar doom bu mu am fan yi man may papi doomam bi ay da njaay loolu yëpp def nga ma ko yu nga nekk jigen man ma jigen ay Aida Njaay nga am ay rakka yu jigen nga jog nga dem di jogur, gor suma nomba ka ma ngi ñeka wosin bu es aw ma sa two months two aw ma sa one month aw ma sa one month Aida nga dem wokut nga fogoon da nga tass suma sey lolu doxut Aida Njaay ma ñew angalter suma jëkër indi ma angalter ma yore woon sa doom three years Aïda Ndiaye amee ko amee bu rafet sa doom bi musuma koo xoos musuma koo taas man seetewu ma ko sax sa doom man dama la dee génnee out of the picture because man suma jëkkër suma indilee xaj sa jox ma ko dama koo téye waxaatuma laa mu jox ma ay nit ak i pam ma jël xale boobu noonu yore ko Aïda Ndiaye suma toogaay fii Europe mu nekk loo xamante ne yow daf la frustrate mel ni yow yaa ma nekk di dundal maa suma doom yi ay nga dem jaxase ma ak nguur bi fii nii ne dama dee dóor suma doom yi am not a good mother dama dee staff suma doom yi accuse ma of so many things ñu jël suma doom yi suma loxo kon xanaa Aida Njaay yow war ngaa mun a relax Aida Njaay loolu rek doyut la léegi yow lan nga buggate si kaw suuf yow lan nga buggate si kaw suuf yow xanaa kon yow boo déggee siina bu deena Yo, ci nga maa door a may jaama nga bay ma nga bay ma si suma jama yo. Bodi déggee dee gis nga sa ki nga ki ki ma ki nga jox ni mu threaten ma nii bi dëkki loi la fini you don't threaten people te nomba bi nomba Angleterre la do dem nga nga nek di call niki, ki di ko threaten di ko send voice messages di ko threaten it's undone te yo nga ne yo man dang ma report police ne man dama la nek di harass te mu ngi ni mang la ignore for months tey nga taal sa live because sa account bi mu ngi private nga fogoon na yow soo live ok nit yu bari duñ ko yëg nga taal live nga xaraas ma nga wax ma lu kenn xamut Aida Ndiaye bi maa def li maa def li si internet bi for the past five years yéen ñu bari fii nii foo leen nekkoon yéen foo leen nekkoon waaye tey problème am na si internet bi ku nekk mu ngi génn waa kii dafa war a bàyyi kii dafa war a bàyyi kii dafa war a bàyyi waaye ay da bu moo live for the five past di ma xaraas di ma bulli man rek sax that was fine Why di di buli suma domi di wax ne man suma domi suma jëkkër juru leen kan si yéen modé ek bena bena bena bena ñoo dé ek ci life Aida Njaay di ko wax ne bayil bena bena two or three people ñeneen ñi si des ñëpp dañoo nekk di comment say is evil say ni say nele say ni say nele yéen ki lim ma def li gisu leen ko pare na ci man mu life day, di saaga ndey yow kan ngay saaga day? Yo ngana yo suma jëkkër ngay sagan yo ay Ndiaye yo wér yo sudu dara sax seetal doom bi nekk seen diggante Aida Ndiaye Aida Ndiaye jigen da gis nga jigen amna na den ko wara jomba sa bopa jigen amna yene ni da nga wara tok toog nga yeddaat sa boppa Aida Ndiaye mu ngi ni jaxase nga ñu ak nguur bi ba yow sa doom bi legi si bopam yuus nga sa doom bi nga ne sa doom bi pour bu mu wax ne bugu papam sa doom bi def wax loolu noonu Aïda Ndiaye Aïda Ndiaye nga screwwaat sa doom bi nga ne sa doom bi na dem na dem wax ne man man dama dee seetaan pornographie ak papam together ñu toog touching ourselves while moom mu ngi toog di ñu seetaan Aïda loolu dafa make sense yaa nga ko suma der fu nekka nag danga foog dégguma ko man maa la ignore maa la bàyyi si biir because dama xam ne wax bu dofee ku koy déglu dofut yéen mii dig di déglu ay waxu dof naka ngay amee uh, uh, eight nine year old child xale bi toog yow nga toog ak sa jëkkër si toogu bi xale bi toog jàkkaarloo yéen ngeen simeeku taatu neen di seetaan bulu film di laal di di laal seen boppa dafa make sense ay Ndiaye Aïda Ndiaye sooy fen del xalaat Aïda Ndiaye sooy sos del xalaat waaye loolu yëpp yaa ngi ko def pour indil ma problème yow da nga waat ne yow da nga maa teglu Aida Ndiaye man soo ma tëgluwee sax bu dee yu yow boo boo defee sax ba soxsiit man boo ma tëgluwee yow aduna du neex ba man su ma wërsëg suñ ma tëjee kaso man dama caabi bi aduna du neex ba man su ma wërsëg yow ñu jox la ko Aida Ndiaye aduna du neex ba man li ma am si suma account bi ñu transfert ko si sa account bi yow Aida Ndiaye loolu du mu sa possible su suma wërsëg bu dee lu lu ma war a am la ma dem ba yow yow mii nga ne man man ngaay indil problème ñu tëj ma yow loolu doo ko mën a am doo ko njëriñoo Aida Njaay lii yëpp lu ko fi jar because yow mënuloo toog nga génn nga ne sey na bu lii la ma def Aida Njaay laa la def lu dul sëy ak góor bi nga amal doom that's the only thing I did loolu rek laa def Aida Njaay apart from loolu noonu defuma da tey nag duma génn di la saaga ndey de déedéet waaye da nga foog yow dama la bàyyi Aïda Ndiaye yow da nga foog yow dama la bàyyi bàyyiwuma la sa te waajuma laa bàyyi yéen internet bi fii kom duma Gambien sii comme duma fi mu nekk nii fi toog si live one point one nit one k nit di seetaan waaw siina bu yor na nga jur doom sa doom bi dee man suma doom bi dee man ma jur doom suma doom bi dee te nga nekk jigéen sa nga nekk jigéen non man man I don't I don't understand how evil some of you people are how evil ban doma moo ban ban jikko doma moo leen duga ban iblis moo leen duga jigéen boo amee mande jigéen sa laa ne jigéen nga dem noos sa nga gis nit wala nga dem hospital nga gis jigéen mu ngi biir ba diis di dox même boo ko ñaanalu sa baat dem si kaw sa waaye di nga ne kii de ndeysaan xam naa sona na yal na wàcce si jaama yal na ko yàlla wàccee si jaama waaye gis nga yow mi toog tikuma nga ne yow yaa sukka noonu tikuma nga naan yow seena bu yow yal na nga jur sa doom sa doom bi dee yow doo yàlla yow ni ñi one point nit yi ko doon seetaan sa bos nañ dégga waaye dégguñu bu yàlla déedéet te bu soobee yàlla incha allah yàlla dina ma wàccee si oom yu sedda guy man bi ma biir yéen fekkewu leen ko doom bi ma biir yàlla moo ma ko may te gis nga jigéen am na yeneen ni war nga koo jomba sa boppa en tant que jigéen boo xamante ne yaa ngee sëy yaakaar ay doom ci sëy si biir sëy boobu noonu même bu dul boobu say boo amee beneen jëkkër nga yaakaar ay doom si sëy war ngaa mun a ñaan yàlla may la sa ay doom waaye jigéen jigéen moo moo fii ku fi tardel sa moromi jigéen moo la fi tardel ku fi tardel sa moromi jigéen moo la fi tardel record boobu ngeen ma koo sen waaw kii mu ne yow yal na nga am doom sa doom bi dee xanaa moom mooy yàlla xanaa yow ayu you God yéen ban bañ nit ngeen bañ nit ba di ko yéenee ay ñaan yu bon yooyu noonu yow kay sooy ñaan bul wax ne man yal yal na suma doom dee waxal ne yal na booy wasin nga dee sa doom bi dee yow loolu nga ma war a ñaanal waaye not ne yal na nga yal yal na nga wasin sa doom bi dee déedéet yow sa ñaan bi da nga juum danga waroon a wax ne man ya bu maa wasin yal naa dee suma doom bi dee léegi man bu ma dee yow at the end of the day man ndax man wërsëg bi ma yàlla yàlla yàlla lifin yow ndax daf koo jël transfert ko si yow déedéet li ma war a am li moom nañ may suulee yow nga continuer ak sa bos gis ngeen aduna dafa gudd a tànk gis ngeen làmmiñ buy lekk xorom baaxut boo leen di wax de leen xalaataat bu baax li ngeen di wax bàyyi leen soxorante bi ngeen nekkee ci internet bi fii bàyyi leen tikkuwante bi ngeen nekkee ci internet bi tii bàyyi leen yëfi doma bi ngeen nekkee ci internet bi fii yéen xanaa yéen yéen yéen lan mooy seen problème boo leen namee yàppa doo leen dem jënd yàppa lekka boo leen namee ginaar ngeen jënd ganaar lekka fii ñu ñëpp a fii ñun ñëpp most of us xamante wuñ in real life dañ jos tasee nii rek si biir internet bi fii léegi tasee si biir internet bi rek ngeen ne yéen da ngeen di lekkante tasee si biir internet bi ngeen ne yéen da ngeen di lekkante waaye nag ma wax la benn affaire gis nga yow mii toog taal sa live di wax ne waaw yal yal yal na nga am doom sa doom bi dee bu soobee yàlla bu ma demee ba wasin ba toog si hospital bed bi ak deret bu tàng bi ma wasinee yow dinaa la tontu su boobaa di nga xam ne yow doo yàlla yow sa bos nga dégga yow déeguloo bu yàlla man am naa ñaari doom santa naa si yàlla te maa ngi ñaan bépp jigéen buy sëy yal na la yàlla may sa ay doom waxuma la doom rek de yal na la yàlla may sa ay doom te yow mii may waxal ni yow mii ma nekk sa kal bu set wicc wicc wicc maa ngi laa ñaan yow yal na la yàlla may doom yal na la yàlla may doom yu gën si doom yi yal na la yàlla may doom yu barke yal na la yàlla may doom yu jullite te yërëm la man maa la ko ñaanal man soxoruma kenn yenn yëfi duma yi ngeen di def nii moom ngeen war a bàyyi su ma nekkoon keneen man dinaa ko tibbee suma xol bi ma déggee loolu man I was laughing that was so funny to ma toog ma di activate suma TikTok bi ñu bari foog ne because of kooku lu wax li moo tax man may activate ma suma TikTok bi because of lii de dama xalaat ma toog ma yedda suma boppa ma ne gis ngeen nonsense yi nekk di happen si TikTok bi fii amu bay njëriñ because ñun fii ku nekk am nga nawle suñ yaay yi ñu war a toog ñuy kool suñ yaay yi from Gambia di leen wax ne sa doom bi mu ngee sa doom bi mu ngee kaa rafetut te nekkuñ ay xale yu ndaw ay mag yi jéem nañ enu kawar booxa kawar keppa kawar am na yeneen yi dañu ko war a wax am na yeneen yi dañu ko waruñ toog sax di xaar ni ñuy wax ñu ko am na yeneen yi ñun ñoo war a toog yeddaat suñ boppa xam ne luñ nekkee du dëgga du yoon ñun ñëpp laa nekk di waxal luñ nekkee du dëgga du yoon nañ leen delloowaat suñ xel ñu génn si luñ nekka ñun ñëpp laa nekk di waxal because man dama waatoon si yàlla ne man problème yi ka man pare naa si sax waaye nit nit rek la te at this point moom xam naa suma hormones yi are driving me crazy especially bi ma déggee dof bi nii life am waaye I promise ne man du ma ti sax di di di wax nonsense ak li waaye man ngi leen di waxal nag yéen try leen ngeen soppi seen jikko try leen ngeen bàyyi ni ngeen nekkee kaakaa yi ngeen di def nii di jaay gaynde gaynde lu fii bu dee ay gaynde ngeen dem leen ci àll bi ngeen lekkante foofu noonu waaye nekk ci tiktok bi subaa guddi bëccëg ngoon ñuy saagante ndey ñuy kool suñ waajur yi from Gambia di leen wax ni waa sa doom bi oo sa nii oo la oo dafa ñaaw gis ngeen man munu leen maa lekka man loo leen ma waxal si biir internet bi fii baax na sosal ngeen ma fii ay sos yu kenn xamul jóg ngeen def seen coalition yéen more than eight people pour tas suma sëy succeedut léegi ngeen pare ci loolu ngeen jog ngeen ne yéen man ngeen di nekk di tikku yëg ngeen ne sa biir naa waaye munu leen may nit ñi munu leen maa may jaama man foo leen toog yàlla nga wasin sa doom bi dee di ma ñaanal ay ñaan yu bon li mota send masi Send evil people like you mota ñu de wax jigen bu biir boo biiree nga nëbbu waaye lii neexu lii tamit neexu de nga sëy nga expect a child so happy about it taking pictures and videos Do ko muna post because of evil people like you Yen happy wu leen doo leen happy yéen amu leen lu baax doo leen bugg a keneen am lu baax yéen da ngeen soxor gis ngeen seen xol bi ngeen war a change li nekk seen xol bi moom ngeen war a dindi foofu noonu ba set bon ngeen te soxor ngeen nekkal leen nit te ngeen def seen boppa ay nit yéen ngeen ne jullit ngeen ay ay deretu góor mooy daw seen yaram bi am na yeneen nii war ngeen koo mun a bàyyi am na yeneen nii war ngeen koo mun a bàyyi surtout nga tooñ koo xamante ne tooñut la so len di wax sen wax wax len sen wax way nit ko xamantene toñut la da ngeen wara bay da ngeen need pour stop li ngeen di def ni amul ben jeriñ so len di jog pour liggéey pour liggéey nit dem la ngeen liggéey nit liggéey man mo man liggéey len ma yobu len ma serign def len ma whatever it is because man name, yen obviously you, you guys are not the first person you xamantene sa wax ngeen ma lolu way bo len ko sété be seet bi ngeen ko dalé wax depuis kagne ba légui lan moma dal dara daluma maa ngi deelu kanam rek but not deelu gannaaw because man dama am ñaanu ndey man su ma ndey daf ma yërëm te ma yërëm su ma ndey du dama toog fii bokka si ñu dee wax ne man dama am ñaanu ndey nii di foog seen dëna de man ku ma xam bu baax xam nga man how much I love my mom man su ma yaay dama ko yërëm su ma yaay dañ daf daf ma bugg buga boo xamante ne dañ ko dee wax ne yow moom dafa mel ni sëy rek nga am te am naa mag su ma su ma ñaanee ma bàyyi I need to stop yéen nag yéen mi amut ay kilifa buñ leen waxalee doo leen bàyyi loolu yéen la rek loolu it's not my business loolu su ma gàtt nee ko si bu leen neexee ngeen lekkante ngeen suppu suppu kànja wante comme yéen ay duma ngeen ay noxoor ngeen lekkante leen booreem pare ngeen dayante ngeen génnee ko seen tuuni duma yu nu ka seen ndey yi ni man mënu leen maa lekka de man boo leen ma lekkee seen biir càppande yi lay fulle yi ñëpp sax Yen ñepp la nek di waxal bayuma ken yen ñepp mi tok di ma di ma waxal nonsense ak yu ken man bo len ma lekke dina fël la seen biir data yaayi yen ngi ni ay mag yu sen nday ndey fay da ngeen de sen tankay eh, jeex ngeen ngeen di stop nit ñi yen fim ne yen yeneen yi so len ci seyut ñi war ngeen mun ñaan yalla ngeen sey bu dee ngeen sey ngeen jere sen sey bu yalla may sey bu dee amu leen doom yal na leen yàlla may ay doom yu julite doom yu gën si doom yi te képp ku ma ñaanal bon fii nii baal naa la si xol bu seeda guy te yow mii toog ne man nga tikku noonu ne ma yal naa am doom doom mi dee yow amuloo men benn sax denculoo même benn waaye maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla may doom buy seddal sa xool yal na nga xam bànneexu am doom yal na nga dem ba toog di fiil doom mu yëngatu sa biir bi nga am bànneexu yaay man maa la ko ñaanal man sëy na bu jaalo man maa la ko ñaanal si kal set wicc bi nekk suma diggante ak yow man nag suma wax fii la moo em because Aida Ndiaye yow suma suma suma suma àndutee ak suma xel dinaa def something stupid when it comes to you waaye dama gis ne yow danga ñàkk jom yow jaral loo ma sama war a toog si internet bi di di di ne xuloo ak yow Aida Ndiaye yow mun nga ma jur Aida Ndiaye yow sa doom bi xawma ma 21 years la am xaw ma 20 years man maa ngi am 23 years yow bu doon danga nga teel a am doom yow mun nga maa jur di yow mun nga maa jur Aida waaye déedéet loolu yëpp doo ko dee sóoraale Aida since starting bi dama la musa jox respect biñ ma joinee call ak yow with everything loo ma defoon ñu ne man may xale bi naa jégalu I did that nekkul ne dama ragaloon de ma def ko because dëgg la may mag bi xaw may may xale bi suñ suñ defee loolu noonu ay man maa nit pour wax I am sorry te with everything li ma def soo dama bëgg dama la ñaan Aida Njie su dee sa mbokkay ñu maa dégga wax len Aida Njie mu bàyyi ma time bi maa nekk Gambia dama sol suma daala àndaa suma njëkke dem ba si sa kër yaay ma teg sa yaay ñu report sa yaay sa yaay mu ne munalu la dara Aida sa yaay mu ne waxal na la ba soona te wax na dégga Aida yow nekkuloo xale bu ndaw Aida yow mer nga yow sa yaay wata toog di ka di la waxal Aida Njaay bayil bayil saagante internet wala bayil jabari mo lamin sa yaay waru la nekk di wax lolu yow sa magi bopa nga Aida te yow yangi ngi am raka bu baax yaa ngi am raka bu jigen bu baax sa raka bu jigen du de set yow ling ma de def li yëpp fim ma tek li lam ma tek suma ak mom Gambia mom suma ma gis daf ma ñew nuyu te mom moma mak yow Aida yow yaa nekk the black sheep of your of family yow you are the black sheep of your family yow Aida Njaay sa yaay bonu de keroog bi ma demee bu doon keneen la mun na wax ne génn leen suma ker wala mu wax ne loolu suma yoo nekku si waaye sa yaay dafa ne Aida munut anything about you Aida loolu gàcce la si yow Aida Ndiaye loolu gàcce la si yow man de tey ku ma demoon boole si suma yaay dina la wax ne dinaa kool bu wala di Sainabou dina dégg li ma ko waaye du du tontu ne munuma dara si Sainabou yow sa ndey munu dara si yow kon yow nit ñi dañ mun dara si yow yow kenn munu dara si yow di man nag fu mu nekk ni wax leen lu leen neex gis ngeen bu leen boo leen boo leen buggee sax def leen ay vidéo yi gaaruwaale lu leen ne because yéen seen xol neexut gis nga nit ki if you are happy with your life doo dee tal keneen sax wala ngay toog sax di fabricate wax di def ay vidéo yi gaaruwaale doo ko tal sax bu dee you are happy with your life waaye gis nga nit koo xamante ne yow kontaanuloo si sa life yaay toog ci biir internet bi di gaaruwaale di def ay videos gaaruwaale suba guddi bëccëg ngoon nit ñi talatuñu loolu at this time amut ku nekk yaa ngi xalaat naka ngaay putee sa life together especially Europe bi fii dafa métti ñëpp xam nañ fii naka la métti ñëpp xam nañ fii naka la métti yaa ngi am ay families yoo xamante ne ñaan nga yàlla pour dimbale leen yaa ngi am ay parents yoo xamante ne am am amal nga leen éenee te ñu ñu ngi nekk ay xale yu ndaw du ma ne ñun sa parce que yéen ñeneen yi ay maire yu katasan nday ngeen yéen yéen da ngeen dox ba perdi yéen a ngi am yu bari yoo xamante ne war ngeen ko mun a focus on try leen ngeen def loolu noonu time wait for nobody tey mun naa xëy fii nii ma dee ngeen toog hey ndeysaan ndeysaan moom de moom ku baax la woon moom de moom ku nii la woon fekk ak li ma waxal li ci internet bi yëpp fekk ak li ma tikku li ci biir internet bi yëpp that's how evil ñun african bi we are that's how evil waaye man am na gën a argue with kenn kenn laa arguing to fi eh, wi with anybody man ma jël suma suma pregnancy pictures dugal ko on TikTok ngeen tiye ma ngankama ma na ko nak way gene ko sa amu njëriñ because already xam ngeen ne I am pregnant and nekut ne dama bir for another man I am pregnant for my husband suma jekar. which lo xamantene man sante na ko yalla so may majama. ma jama te ngeen yene ma jama boo leen maa ñaanal loo ma bañ bañ bañ boo leen maa ñaanal ñaan kii de ndeysaan yal na wàcca si jaama waaye bu leen ma ñaanal yal na dee yal yal na nga am doom sa doom bi dee wala boo leen maa ñaanal loolu ñaanal ma ne yal naa dee suma doom bi dee ñaanal ma loolu waaye soo ma waxee man yal naa wasin suma doom bi dee mun naa amaat beneen di mun naa amaat beneen yéen doo leen yàlla doo leen dara may leen ni ñuy jaama si biir internet bi fii nii man nag I promise many people since after the last problem I promise many people ne duñ ma déggati sa si coow te te te foofu laay stick with dafa nekk ne doomi xaram bii nii daf ma nekk di énervé daf ma nekk di merlo waaye Aïda Ndiaye defar lu la ne Tala life saga ma because saga loma munti munti saga Aïda sumaya taxa Loma yaram bi loo ma munti munti saaga Aïda suma yaram bi du si taxa te yéen ñëpp di nekk di wax di ŋawti ŋawti ni maa leen gën a féetee xale maa leen ëpp doole maa leen daaxa maa leen gën a am taxawaayu jigéen maa leen gën a éduqué te xam ngeen loolu di yéen seen yaram yu téegal ndeyam yi nii xeesalkat yu nukka seen ndey yi nii nduro watul leen ni nukka nañ leen ba ngeen furi kenn xamatul li ngeen di nduro ngeen ne yéen doole may ni ñuy jaam lekkante leen ci biir tiktok bi maa ngi gindi ñu ma ma bàyyi wax bi maa ngi bàyyi wax bi waaye xoolal lekkante leen si biir tiktok bi yow sa yow duma la may bës di la jël di la ak suma péeg sa kanam bu nukkan ndeyam bi sa kanam bu caapa ndeyam bi mel ni eh, fëriñ bu buñ dëppa nii ba toog nii sa ñaawaay bii nii nga mel ni duma nii yow Aida Ndiaye yow real duma nga yow in a real life Aida Ndiaye yow duma nga Aida Ndiaye waaye gis nga sa bébi bi xaw ma sa bébi la xaw ma sa liir la kii mu mel ni primature nii yow Aïda Ndiaye yaa ñàkk jom Aïda Ndiaye Aïda Ndiaye yow liir bébé bu ndaw bi moom ngay dem di di di di defante moom nii di ba amante moom doo may wax mu ne man la moo wax ne send me your location I'm gonna kill you I'm yow da kii xanaa kii dafa dof xanaa kii xamul ne fii dëkk bi loi loi moo fi nekka xam nga yow da nga stupid yow you are very stupid waaye gis nga man man du ma nangu ngeen teg ma stress benn yoon man du man, nangu ngeen teg ma stress gis ngeen energy bi ma use ni. dama ko war keep energy bi dina ma njëriñ because in in in si kanam in the future a little bit I'll, I'll have to push out a whole motherfucking baby ci loo xamante ne ñaanal naa leen ko yéen mi seen boppa yal ko yàlla may so may leen ma jaama may leen ma jàmm ŋang leen ma wadda man mun leen maa lekka wax naa leen ko de mun leen ma lekka nag waa yow Aida yow ah billah yow sa mbir ay ree la ma de def sama ngi ñëw génne sa vidéo si yëpp yoo xoolal taalal live every day waxal lu la saf defa lu la ne man faalewu ma la tey faalewu ma la ëllëg maa ngi sëy nekk xale bu ndaw bi maa am eighteen years laa sëy depuis ma toog ba léegi joguma ma mu neex mu naxari ma muñ ko ñen def sen pexé ñaaka def sen pexé ma ngi tok di sey suma sey suma jëkër mu ma bugga bi bugga de yërëm ma bi bugga yéen yéen xamulen yërmande bi suma jëkër am towards man yen xamulen lool non de gis ngeen bu doon maggeel rek mo nekkoon suma digantek mom moom ni kon di ngeen doon soksi sa pul tas suma sey way suma jëkër daf ma yërem comme doom mu jur comme doomam mu jur yow kon wéro yow wéru leen man nak man suma ma jëkkër su nawle la du ma ci biir internet bi fii di di di di di xuloo fii suba guddi bëccëg ngoon jëkkër di ko dégga niñam yi di ko dégga ak yooyu noonu jëlalu ko benn doomi xaraam maa ngi toog laaxu suma laaxu di rukku suma rukku di def bem baax yéen da ngeen yaakaar ne yéen sëy rek sëriñtu la toog leen fii di sëriñtu góor yi di ngeen yàgga di sëy rek boo leen sëyee fii tas boo leen sëyee fii tas gis ngeen jigéen doon sa feemi wax len jigen da nga jël sa fem sa fem rek boko ko di nga jël sa jëkër képp ko sa ron poxotaan yi pexi sëriñ du ci jóg waye da ngeen ñaaka fayda da ngeen manké man nak ngi di dem suma yoon man kenn duma tek stress at this point because whatever it is it's gonna affect my baby so duma ko nangu yeen doomi harami ni ngeen war ma tek that stress té xam nga nak ndaysan dama nice nak te dama day jur ay baby si nice I produce cute babies te maa ngi leen di ñaan képp ko am nga say doom yal nga toog fekkee say njëriñu doom lekka seen njëg képp koo xamante ne amuloo doom maa laa ñaanal yal na la yàlla may doom yal na nga am bànneexu doom képp koo xamante ne toog nga ci biir internet bi tikkuma fii ay maa laa ñaanal yal na la yàlla may sa doomi boppa nga toog ba biir nga gis ay doom di muuf muuf si sa biir bi nii nga dem wasin téye sa doom bi den dinga xam bànneexu doom den gis nga boo demee am doom ba tuur deret am am yërmande yaay ci doom yow doo musa yéene waat beneen jigéen bu biir na yal na mu jur doom doom bi dee doo musa yéene waat jigéen bu biir na yal na ko safaan jot suma wax bi nag fii laa koo emal man kenn du ma teg stress yéen ay vrai doomi xaraam ngeen ku leen topp dee fayuma life bi